Nous recevons ce matin avec un grand plaisir euh, Madame Diematifal, porte-parole adjointe du Parti socialiste, euh, membre du bureau politique euh, et secrétaire national à la communication du PS. Madame Diematifal, journaliste également euh, connue euh, de partout. Bonjour et merci d'être notre invitée pour la matinale de ce lundi. Un grand plaisir de vous recevoir. Alors, euh, le bureau politique euh, du Parti socialiste s'est réuni samedi dernier, une réunion qui était euh, l'occasion euh, certainement d'évaluer les locales, de se projeter sur les législatives, en, entre autres points qui interpellent le PS. Qu'avez-vous retenu à, à l'issue de cette euh, rencontre Merci Fatou. Donc, le bureau politique s'est tenu après une longue absence mmh. en raison de diverses causes. Mm. D'abord, Vous savez que nous sommes toujours en deuil de notre défunt secrétaire général Ousmane Tanordien. Et il y a eu la Covid, il y a des élections, et puis il y a plein de choses qui se passent. Quoi, là. Depuis deux ans, la planète est bouleversée, y compris euh, jusque dans les et les organes de presse. Euh, donc, euh, le bureau politique de ce samedi 9 euh, avril a été l'occasion pour le Parti socialiste, mm. parce qu'il est de tradition démocratique dans le Parti socialiste de se parler, d'adresser les, les, problèmes dans les instances, à l'intérieur des instances, et non mmh. pas dehors, sur la place publique, et de leur trouver des solutions ensemble et en concertation. Nous avons l'habitude de nous dire nos vérités euh, dans le sein du bureau politique, et je peux vous dire que parfois c'est très chaud, mais la parole est donnée à tout le monde, et lors de ce bureau politique, les socialistes avaient vraiment de,

à nos braves lions, mm. qui, vous le savez, euh, ont, ont, remporté euh, la Cannes mm. et se sont qualifiés pour le mondial. Mm. Le bureau politique, donc, a écouté euh, des communications, notamment celle de, du secrétaire national au TIC, mm. Abdou, le camarade Abdou Karim Beng, mm. donc, euh, qui, a, qui, a, qui, avait fait des propositions auparavant mm. en SEN, mais qui, qui ont été formalisées dans ce bureau politique pour que tout le monde puisse se les approprier mmh. et que la réflexion puisse continuer sur euh, cette réflexion, sur, euh, sur ces, ces euh, mm, comment je peux dire ça, euh, sur ces propositions, Proposition. sur ces propositions. Et il y a eu également une communication du camarade Alpha Bailagay, mm. qui est donc le coordonnateur de Vision Socialiste aux côtés de Aïssatou Diagne, mmh. et également une communication de notre camarade Boubacar Baldedi Sarkozy, mmh. et, euh, qui, a, qui, a, qui créé un comité de réflexion d'initiative. Alors, il y en a qui ont parlé avec la passion, vous l'avez dit tantôt, ça veut que oui. c'était chaud par moment Laissez-moi terminer avec euh, la communication de de Boubacar euh, Baldé dit Sarkozy, mm. non a à s'exprimer mm. sur, euh, sur des choses qu'il avait déjà dites mm. auparavant mm. en, en, conférence de presse. Mm. Et il y a été reproché, tout le monde lui a reproché, tout le monde y a passé un savon lui disant que quand a des choses à dire, on les dit dans les instances. C'est dans les instances qu'on trouve les solutions. Mais, le bureau politique ne se réunit pas Le bureau politique ne se réunit pas, Parce que cette réunion a été réclamée depuis longtemps. en dehors du, bureau politique, mm. il y a d'autres instances ah, Fatou, qui permettent de. Mais mm. le dialogue n'est jamais rompu. Mm. Il, y a des, instances. Il y a déjà le, le, le comité des sages du Parti socialiste qui a été dans cette euh, affaire euh, médiateur. Il y a d'autres voies, canaux et moyens que tout socialiste connaît. pour euh, s'adresser entre deux bureaux politiques mmh. ou entre deux euh, secrétariats exécutifs nationaux mmh. pour, pour, adresser ces réflexions. Euh, les choses se règlent à l'intérieur, mmh. pas à l'extérieur. Mm. Donc, ça, ça a été le le leitmotiv. Mm. Et je pense que, je pense que M. Boubacar Baldé dit Sarkozy et M. Euh, Diouf Mbodj ont dit qu'il ne s'agissait Mamadou Diouf, on dit qu'il ne s'agissait pas d'une motion, mm. il ne s'agissait pas d'un courant, ni d'un mouvement. Ni d'une fronde. Et le mot fronde n'a jamais été prononcé. Ah. Voilà. Donc, ils ont dit que, euh, le, techniquement, ils ont dit que ce n'était pas un, un courant, ni, ni, ni, une motion, ni, ni un mouvement en dehors du Parti socialiste et mmh. de mm. ses organes régulièrement constitués. Mm. Ils ont dit que c'était simplement une contribution à la réflexion mmh. sur la dynamisation du Parti socialiste. Mm. Voilà, ce mot que dont vous parlez n'a jamais été prononcé. oui. D'accord. je, euh, réitère la question. Est-ce que c'était par moment On vous a entendu tout à l'heure dire que ah certains ont parlé avec passion. Ah, bien sûr. Ah. Moi-même, je me suis exprimée avec passion. j'ai passé un savon à, Sarkozy. avec, euh, dans la camaraderie. Mm. Oui, les gens s'expriment avec passion parce que oui. vous savez, la politique, c'est comme la religion. Mm. Ça touche oui. au, au, plus profond. C'est très intime. Mm. Donc, euh euh, euh, euh, vous dites des choses, hmm. vous dites des choses. On est en bureau politique, hmm. on est tous des camarades. Oui. C'est euh, comme dans les rédactions. Tout, <laughs> voilà, c'est comme dans les rédactions. Oui. Euh, quel que soit le grade que vous avez au sein mmh. de hmm. ce parti, mmh. un militant égale un militant. Oui. Madame euh, Aminata Mbengue Ndiaye, qui est mmh. le hmm. secrétaire général du Parti socialiste, elle a le même euh, droit à hmm. l'expression, mmh. oui. à la passion que, que le militant qui a eu sa carte hier. Voilà. <laughs> que, non, que le militant qui a eu sa carte hier, ou même qu'il a eu oui. 30 ans avant, mmh. mais qui, qui, qui, est un militant simple. Hmm. Voilà. C'est ce que je veux dire. Voilà. D'accord, c'est clair. Oui. Alors, vous avez évalué les locales, certainement, lors de cette euh, réunion du bureau politique. Alors, vous avez parlé aussi des législatives. D'abord, pour les locales, qu'avez-vous retenu, vous socialistes euh, il ne s'agit pas d'une euh, évaluation hmm. au, sens scientifique du terme. Ah. Parce que l'évaluation, euh, au sens scientifique du terme, le, le, la commission scientifique du Parti socialiste qui s'en charge. Qui, non, qui fait l'évaluation sur des, bases scientifiques. Hmm. n'est-ce pas, sur des bases techniques, pas comme ça, euh, voilà, pas comme ça. Mmh. Mais, tout, mais tout de même. Mais il est clair que vous avez perdu quand même. Tout de même, laissez-moi terminer, oui. tout de même, les, euh, les camarades ont, ont les responsables mmh. de, de, de, de, coordination. Les, les, camarades qui étaient sur les listes ont fait eux-mêmes leur propre évaluation de mmh. manière succincte. Mais le travail scientifique sera mm. fait au sein de la, de la commission. Voilà. Mmh. Maintenant, en attendant que la commission non, fasse. Vous, vous, avez dit que nous avons perdu. Je, je, je vous relance. <laughs> Non, Certaines. je vous relance. Je oui. vous relance. Donc, <laughs> c'est une taquinerie. C'est une taquinerie, oui. euh, Fatou. Oui. Ouais? Alors, euh, qu'est-ce que euh, vous avez retenu Parce que globalement vous savez que, Oui, maintenant. Vous savez ah, que, le temps que la commission que, fasse son travail. Non, vous savez que mmh. la, euh, nous sommes membres de la coalition Beno Bokoyaka, mmh. qui, a, qui est d'ailleurs la, la, la coalition qui est la, qui est la plus grande longévité. C'est mm. inédit au Sénégal, mmh. donc qui est largement en tête, mm. avec 1 Malgré la voix, percée de Yahweh. Avec 1 800 000 voix contre 700 000 pour l'opposition, y compris euh, Yehui Askanui. Donc, euh, donc euh, sur un nombre total de suffrages exprimés euh, mm. de 3 174 700. Mm. Et un taux de participation euh, exceptionnel d'ailleurs de de près de 48% de, mmh. des électeurs inscrits. Mmh. Donc, je ne vois pas <laughs> qu'est-ce qui a été perdu. Ouais. Maintenant, si vous entrez dans le détail, oui. y individuelle de part et d'autre. Non, il y a des échecs, mais je veux mhm. dire globalement. Voilà les chiffres que je viens de vous donner. Maintenant, pour le PS, vous êtes oui. membre de Benno, ça c'est clair. Mais le PS, quand même, a son évaluation qui lui est propre, euh, qu'il doit forcément faire. Le temps maintenant que la mhm. commission fasse son travail. vous, politique maintenant, quest mhm. avez retenu par rapport au local Vous n'avez pas été déçu un peu, Non, puisque je viens de vous dire que globalement, oui. cela s'est bien passé. D'accord. Globalement, cela s'est bien passé. Mm. Il y a des, des, des, échecs individuellement. Il y a également des victoires mm. individuellement. D'accord. N'est-ce pas Alors, voilà. pour les législatives, oui. qu'est-ce que vous prévoyez de faire Euh, alors, Parce que les, oh, lors des locales, vous aviez déposé votre caution, certains de vos membres étaient allés même. Euh, il y a eu des listes euh, parallèles. Défier, oui, oui, il y a eu des D'autres membres de Benno Bokoyaka. Et pour les législatives non, Ils euh, ne sont pas allés, on ne va pas appeler ça un défi, défi aux autres membres de Benno Bokoyaka, mm. puisque on, va, on revient sur ce que vous dites, c'est très important. Oui. Vous dites qu'il y a eu Euh, le PS avait déposé sa caution. Non, que Pourquoi? le PS a eu des listes parallèles. Oui. Oui, évidemment, il, il aurait fallu pour cela mmh. que le secrétaire général, la secrétaire générale dépose une caution. Mmh. Oui, mais il y a également, les, les, socialistes étaient également sur les listes de Beno Bokriakar. Oui. Mais d'autres camarades ont voulu tenter euh, l'aventure tout seuls mmh. parce qu'ils étaient sûrs d'eux. Pour certains, ça a été pour beaucoup, ça a été... Euh, euh la chasse a été bonne. La chasse a, a, a été bonne. Pour d'autres, bon, Pour d'autres, non. Oui. Voilà. Mais il faut savoir que même dans les euh, euh, te, euh, hum, collectivités territori territoriales qui sont gagnées mmh. par des socialistes, c'est toujours Beno Bokeyakar. Mmh. Voilà. Alors, pour les législatives, vous comptez euh, euh Alors, reconduire la même stratégie J'ai parlé tout à l'heure. Mmh. On est à trois mois des élections législatives. C'est pas à trois mois qu'on va changer. Mmh. Et vous savez aussi que depuis 2012, le PS est dans la coalition Benobo Yakar et le PS reste, reste, reste euh, euh, fidèle à ses op options fondamentales, mais reste également, respecte également les, les, les engagements que le PS a librement souscrit auprès de Benobo Yakar. Mmh. Donc, pour répondre euh, directement à votre question, le PS ira aux législatives avec Benno Bokeyakar. Il n'y aura pas de liste parallèle Il n'y en aura pas, non. C'est clair, ça oui. c'est réglé oui, euh, au sein du PS. Mhm. Euh, parlons maintenant du compagnonnage avec Benno. Vous en avez certainement parlé euh, samedi dernier. Qu'est-ce que l'évaluation On en parle tout le temps, de toute oh, façon, oh. et pas seulement ce samedi-là. À toute réunion, vous savez que c'est une, réunion de, de, parti, mm. donc les choses qui sont dites là sont, sont un peu confidentielles. Oui. OK Donc, euh, nous avons dit que le compagnonnage avec Beno Bokeyaka mmh. n'est nullement euh, la perte de nos valeurs propres socialistes, mmh. ni la dilution de notre identité propre, mmh. puisque nous restons socialistes. D'ailleurs, ça se voit d'ailleurs mmh. dans le comportement, d'ailleurs, ça se voit. Mmh. Les socialistes se sont effacés mm. derrière d'autres membres de parti de la mm. coalition pour préserver l'intérêt général. Mmh. Donc, euh, nous sommes dans une organisation dans laquelle nous faisons preuve d'esprit de responsabilité mmh. et de solidarité. Et, et, et, et nous, nous, nous, notre parti donc, jouit d'une grande considération, mmh. comme vous le savez, hmm. à l'intérieur de Benobo Koyaka, comme dans l'opinion publique. Parce que nous sommes un parti de, de réflexion, hmm. nous sommes un parti qui, euh, qui a bâti construit le Sénégal, qui a, je dirais même, qui a bâti l'homme, l'homo sénégalensis, mm. euh, sous le régime du président Senghor. Mm. Nous sommes un parti qui a construit les libertés sociales, économiques, mm. euh, euh, syndicales, les congés, tout ça là, c'est le mm. Parti socialiste. Mm. Il n'y a personne au Sénégal qui n'est qui n'est qui soient nés ici sans que ce soit des infrastructures créées par le, le Parti socialiste. Le, le fameux régime, oui. le fameux régime du Parti socialiste. Mm. Donc, nul ne peut se départir de l'expérience du Parti socialiste. Mm. Nul. Donc, c'est une, c'est une expérience qui a, je pense qui a été profitable mmh. au peuple sénégalais dans beaucoup de domaines, mm. dans beaucoup de domaines. Et donc, le, le Parti socialiste jouit toujours de cette considération-là. Mm. Euh, Pourtant, le Parti je, vais venir à votre question. Je la <laughs> connais, votre question. c'est <laughs> le Parti socialiste est respecté au sein de la de, coalition Voilà, donc oui, j'ai bien compris. Il nous reste que moins de deux minutes, okay. une minute même, euh, Le Parti socialiste mm. est respecté mm. au sein de cette coalition. Mm. Sinon, le Parti socialiste ne pourrait pas rester dans cette coalition mm. parce que les militants du Parti socialiste ne l'accepteraient pas. Et il n'y a personne, aucune autorité, je dis même la secrétaire générale du Parti, du parti socialiste, mmh. Madame mm. Aminata Mbengue ne peut obliger un socialiste, un militant socialiste à accepter euh, de, ne, euh, de, ne, pas être euh, considéré, à, Pourtant, elle a été écartée dans la collecte de parrainage. Beaucoup ont peut-être interprété ça vous autrement. a désigné les, euh, responsables euh, de, la collecte. Parce que l'information a été vue quand même en même que euh, tout le monde. Vous, savez comment on collecte une information Oui. vous la tenez de, qui Est-ce que c'est une source officielle Est-ce que vous avez vu la preuve de ce que vous dites Mais il y a un communiqué qui a listé. a Tous ceux qui sont chargés. est rejeté les Est-ce que c'est un euh, communiqué de Benno Bokk Yakaar Non. <laughs> Donc, je suis désolée, cette information-là est, est erronée. Mm. Elle a été abordée d'ailleurs au, au, au sein de lors de la réunion. Cours, au cours de la réunion, au cours mm. du débat. Donc, c'est une, je vous dis tout de suite. Donc, elle est impliquée, sommes... c'est ça que vous voulez nous dire. Mais évidemment, mm. comment, hmm. comment voulez-vous que le secrétaire général d'un parti, d'un parti, mm. membre de Beno Bokayakar, ne soit pas impliqué Soyons logiques et hmm. cohérents. Hmm. C'est pas logique, ça, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, nous sommes. Euh, le parti a remercié euh, Mambouna Massal qui nous représente oui. au sein du SEP de Beno Bokayaka et qui a dit que c'était faux. Évidemment. Mmh. la, la toute dernière. Et pas une information. La toute dernière <laughs> question, euh, Dieu Pourquoi, pourquoi nous, la presse, nous aimons toujours. mais euh, parce que nous voulons édifier quand même. C'est pas euh, logique. Non, mais c'est pas logique. Mmh. Vous pouvez pas être euh, diriger cette émission-là. Oui. Et puis, vous n'êtes pas membre De Réumi. Oui, ou plutôt vous n'êtes pas, oui, c'est ça, vous n'êtes pas membre de ceux qui décident. <laughs> voilà. Alors, c'est pas logique. Ça veut dire que, euh, bon, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été euh, rumeur de fronde, euh, et même d'un probable divorce euh, lors des prochaines août, ça ne tient pas. Et Allah. Euh, non, j'ai dit, vous, et Allah. Vous, vous n'y pensez pas. Non, dit, il mm. n'a jamais été question d'un divorce au cours du débat. Mm. Bon, maintenant, si vous entendez des rumeurs de divorce en dehors Ailleurs. des instances du <laughs> Parti socialiste, mm. elles n'ont pas raison d'être, n'est-ce pas mm. Il n'a jamais été question de, de, de divorce mm. ou de changer mm. euh, de changer d'option à l'intérieur de Beno Bokoyakar. Mm. Nous maintenons mm. notre engagement à l'intérieur de Beno Bokoyakar. Voilà. Pour ces clair. élections législatives-là. Législative. Voilà. Et pour la prochaine présidentielle Est-ce que nous sommes à la prochaine présidentielle Est-ce que vous pouvez nous laisser Est-ce que vous pouvez nous laisser oui. d'abord euh, euh, euh, préparer, finir les législatives, les, les législatives mmh. et ensuite penser euh, à la présidentielle et comme toujours, oui. ce ne sera pas décidé mmh. sur la place publique, mmh. ce ne sera pas décidé par la presse, mmh. ce ne sera pas décidé par les rumeurs, ce sera décidé par les instances du Parti socialiste. Et je vous dis encore, Madame Aminata Mbengue Ndiaye mm. ne peut pas donner d'ordre à un militant. Mm. Les militants du Parti socialiste sont libres, ils s'expriment, ils agissent comme ils, comme ils le sentent parce que le parti n'est pas une daïra. Mm. Oui, c'est un parti de militants. Madame Aminata Mbengue Ndiaye, quelle que soit la personne qui serait à sa place, ce serait la même chose. Et on ne peut pas en remonter à un militant parce que le militant mm. est, est, un adhérent libre. Qui peut obliger un militant du Parti socialiste à faire ce qu'il Qui Alors, oui. Euh, à, quand le congrès Le congrès a été, la question du congrès a aussi été abordée mm. et des réponses ont été données. D'abord, le congrès, ce n'est pas une injonction. Mm. Le congrès obéit à des règles. Mm. Ce n'est pas une injonction. injonction et aucune, et aucune injonction ne peut être donnée au Parti socialiste pour hmm. tenir son congrès ou pas. Hmm. Parce que je ne comprends même pas pourquoi c'est seulement au Parti socialiste qu'on qu exige de tenir un congrès. un congrès. Nous avons l'habitude de tenir des <laughs> congrès. nous avons l'habitude de tenir mmh. des congrès, mm-hmm. mais pour tenir un congrès euh, FATO, mm-hmm. il y a des conditions préalables, notamment l'achèvement de la vente des cartes. Mm. Voilà. Renouvellement, entre autres. Et, euh, oui, achèvement de la vente des cartes qui qui ensuite induit le renouvellement des instances. Mmh. Comment voulez-vous tenir un congrès si cela n'est pas parachevé Et c'est aux, aux, militants eux-mêmes, aux militants, c'est pas la direction du Parti socialiste, c'est aux mmh. militants eux-mêmes, d'achever la vente de, de, de leurs cartes. Leur carte. Il y en a qui l'ont achevé depuis mmh. longtemps, mais mmh. d'autres non. Mmh. Parce qu'il y a des problèmes peut-être qui subsistent, oui. n'est-ce pas mm. Et donc, comment voulez-vous euh, faire un congrès si vous ne renouvelez pas les instances Voilà, c'est ça. Et ça, tous les socialistes l'ont compris. Mais tous les socialistes le savent. Mm. Non, c'est même pas qu'ils l'ont compris. Vous savez qu'on a une école de parti. Les gens sont formés, mm. ils le informé que moi de, de, de, des règles et statuts du Parti socialiste. Mm. Ils l'ont intégré très, très, bien mm. par la pratique, par l'apprentissage déjà à l'école du parti mm. et la pratique. Merci, Diema Tifal, porte-parole adjointe du Parti socialiste, membre du bureau politique et secrétaire national à la communication. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Pour moi aussi.